فرع مولد النبي محرما كماله قاد الغلا والكرما من لك مولد النبي سفرا sëriñ Cheikh Mouhamadul Bachir ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké di jëwriñu Cheikh Mouhamadul Lamine Baara ca guy mbind di xalifab Cheikh Sidul Moxtaar jabootu sëñ Baara gépp nekk ci ginnaawam moo ànd ak li mu yilif muy kër sëñ Baara ñëw di la ndokkeel si ci bés bii nga xam ni seen bésu wayjur la waaye suñ bésu maam la noo am ci cër bu rëy ngir sëñ Abdou Khadir ni mu demee woon ak Cheikh Mouhamadou ni nga demee ak Cheikh Sidul Moxtaar kon bu bisub sëñ si di Cheikh Abdou Khadir Mbacke dikkee noonu da dañuy jàpp ne suñu bés la ndax njabootu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké kenn ku nekk xam na ni mu demee ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine sëriñ bi nee na ànd naa lenn ci njaboot gi ñëpp la bëggoon a àndal ndax noonu nga toll ci moom waaye ñi àndal ñëpp dañuy benn ci moom bu bu àndoon ak kenn képp mel na ni ànd naa kër gi yëpp ndax noonu la jàppe kër gi kër gi mu yilif mi ngi leen ndokkeel ci bis bi bis bi kenn ku nekk xam na ni bisu yërmande la bisu fajug aajo la bésub tawfeex la bésub ndimmalul taalibe yépp la du bésub Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir ku ko xamoon euh, euh, léppam day Cheikh Ahmadou Bamba Abdullahi wa Xaadimu Rasuulihi daraam génnul Sëriñ Tuubaa lislaam dafa séddalikoo ay xaaj yu bari am na lu ñuy tudde lislaam ñu tënkoo ci liimaan lislaam lihsaan mm-hmm. am lu ñuy tudde tasawuf mm-hmm. am lu ñuy tudde sunna mm-hmm. moom yu baax yooyu yëpp mu gaw ko tudde ko benn baat sëñ Abdou Khadir ku xereñ la woon sëñ Abdou Khadir ku dégg diine la woon sëñ Abdou Khadir ku mën a jàngale la woon yooyu ñu wax yëpp da koo tënkoon ci al istiqaamatu al istiqaamatu nag da fay fekk liimaan fekk fa lislaam fekk fa lislaam islaam bi yëpp ci ay usuulam ak ci ay furuam day tabbi ci al istiqaamatu Euh, tasawuf laaj <coughs> ci zuhdu tawaadon ak waran ak aqida ak sharia ak axlaaq yooyu yëpp danga koy fekk ci kalimatu euh, ci ci baatu al istiqaamatu bi Sëñ Abdul Xaadir doon dund li sunna laaj ci muhaamala xasana ci jëflante nit ñi nii yonante bi doon jëflante ak saxaaba yi jël rasulullahi sallallahu def ko xutwa xutwa xutwa xasan loolu lépp sëñ Abdou Xaadir da ko doon dund tënk ko ci al muy baat bu gàtt boo xam ne tënk na lislaam bi yëpp busharatan lam tukfara nafaxa mawlidun nabi rabia al awwal alladi aral yanbuha sharafa مولد النبي ربيعا الآخر الذي طمل مربوحا أكرم مولد النبي جمادا فلا يزال ذاكرا حمادا آتى النبي بشارة جمادا قدت بها بفلي حمادا بطلب مولد النبي رجب فوضا به انقاد إليه العجب للمصطفى